la deuxième capitale bu Sénégal loolu la deuxième capitale bu Sénégal waaw léegi ñaata ñaata société ñoo nekk Touba ñaata usine ba fii may waxee weesoo bu inoon di inondé li wër jumaay Touba guddi lamp yi duñ tàkk sëñ bi defal maanaam gis nga yàlla li mi aay aay aay su dee taw nga dugal sa këll bi fii ci sa ronlal du ko du dikk li muy bari bari yërmal du dikk mukk génne këll bi di faw nga génne ko doxi jéegu génn ba ci bitti taatal ko même boo génne ba ci bitti teg ko fa këpp ko tamit du ko koppi kon nu nit luñ bëgg bëgg bëgg sëri bi dafa am lu ñuy defal suñu bopp way am na loo xam ne sëñ bi ñu koy defal mustaqara mustawdaa ak kullu fi kitabin mubin loolu moom même boo toogoon tamit yàlla manal na la ko waaye nag ba ma xalaatul jinne wala moon ci lu may soññee li tax ma soññee ko nag mooy idée bi nga génnee ne talaatay Cheikh Ibra bëgg nañoo ubbi restaurant wala ay yeneen projet yoo xam ne dañuy liggéey ma wax ne loolu wërta yem ci yow ndaw yoon wi dañoo war a fexe di ay projet di liggéey am sax lu leen di encadré jar sax yoon wi ubbi ay cabinet yoo xam ne dañu wax ne jeune murid yi ku ci bëgg liggéey ñëwal parce que jeune yaa ngi leb ci banque yi di fay te leer na ma ne ni ñemee banque yi may fay ñemewuñ sëñ Tuubaa moom mën nañ leen di lebal encadré leen ñii ñu delloo leen ci tool yi ñuy bay xaal su boobaa ku fi lekk xaal ak murite la koy ñii ñu delloo leen ci tool yi ñu bayi tamaate ñii ñu yóbbu leen tool yi ñu bayi gerte ñii ñu defar leen ay ay ay société yoo xam ne dañu fay def ay ñaw defar ay fauteuil wala defar leneen ak leneen mën nañuy importe yoon wi am na lépp mais organisation bi moo jafe te pourtant comme mi moom bu sëñ bi soxlaa ci suba gi mu gont ñëw bu ko soxlaa ci ngoon gi mu xëy ñëw bu fekkee ne tamit daa bàyyi ba ci digg bëccëg gi mu soxla ko bu soobee yàlla dana rañaan ñu sëriñ bi moom buy soxla koom bi koom mi di kon nag mbir mbir yàngoo du sëñ bi lay waxal mais nun nun nun ñi nga xam ne ak it ñun ñi nga xam ne dañ ñoo gën a jege kilifa yi tamit ñu fexe ba di ubbi daal ay barab yoo xam ne murid dañ fa liggéey man li ma metti mooy jébbalu ci sëñ bi yaakaar sëriñ bi nekk fii ci sànd gi di jaay ay ay café di jaay ay dàll am na ñoo xam ne ay sarbet yu ndaw la yor ay jaaray xale ay maam bitig mbagg ci gàttal bitig bi ci mbagg bi lay ne fa nga ko doon yaakaaree loo reere wala loo añee ñu ne la du fi léegi nag sëñ bi moom dafa croiser les bras te yow nee nga ko yow laa yaakaar àdduna ak alaxira te adduna ji moom taxaw wut sa mbir ci dara adduna ji defut benn taxawaay wala effort dafa jar yëkkati loxo ne ah déedéet ñooñu kat sama njaboot la noonu osa ñëwee xam nga osa ngi fii osa noonu osa ñëwee fii ñu kopp koppal ko muy doomi jàmm dañuy jaral ay murid taxaw ubbi lu mel ne osa jël suñ doom yi nar a taxawaaru ci mbedd mi def leen ci mais lan lañuy kopp koppal ci réew mi mbër moo fi gis muy bàkk Sëñ Tuubaa sama sëriñ ñaata licence bi ma koy mujj a gëstu 4000 licence ci senegal ñiy bëree ci année bi matuñu saxal mais loolu lan lay mujj këree ci mu réew est-ce que du mujj une insécurité fonkal mu entraîné ba am doole te mu dum def nañ ko jàngatat te leer na ma noonu ba mu ko mujjee gëstoog léegi boo moytul dépassé nag 4000 licences ah léegi nag loo xam ne yow liy bëree matuñu téeméeri mbër at mi yëpp ñi bëree danañ mat téeméer waaw waaw waaw te bu fekkoon ne mat na cinquante sax ñi ciy fayeku lu mën a dundal seen kër mën a faj seeni aaju ba duñ soxlaal kenn dara soo moytul ñeent lañ cee doon léegi ñooñu ci yan taxawaay lañ leen war a taxawoo ak ci yan jumtukaay ba Sénégal amaat beneen xeetu xar kanam du du caagin damay ñagasal leen wala may kii de damay wane rek ñi ñiy tudd daal sëriñ bi bu ma sañoon daañu wut ñu leen taxaw organiser leen ndax doole jaa ngi fi xam-xam baa ngi fi wërsëg waa ngi fi organisation rek la nu manqué organisation nag tubaab bi du jógee ci àll bu mukk dinu ko defal lu tasaare loolu échec loo lay def parce que nee naa leen bi ñuy xeex sëñ Touba ay mëq doom la léegi nag gën nañoo jekk ndax ay bomb la ñor ay missile anti missile ak ay radar euh, yoo xam ni maanaam kuñ bëgg a euh, yëddu mën nañ laa yëddu ñii nag bu ñuy xeex ak sët yi te nun ñi kenn ku ci ne sañoo yëkkati sa sa loxo ne yaa man sa baay nun ñii amuñu kenn ku sa yëkkati loxoom naan maa man sama baay bu fekkee ne ñun kenn mënu ci bàyyam te tubaab yi ku ci ne yaa man sa bàyyi man sa maam nu bëgg a jàkkaar jàkkaarloog ñoom ci li nu yor lu sotti tubaab yi moom ñun ñëpp tubaab boo fi gis bu judd ñaari at ñett mooy man bàyyam man maamam ci li maamam doon defal bàyyam nun nag suñuy bàyyi nu man fuuf suñuy maama nu man fuuf kon li nu desee mooy organiser ndax man sëñ Tuubaa yombul ndax sëñ Tuubaa fañ war a manantee fa la manee ñëpp mais organiser moo des organisation moo tax daal man murit bu ma gis nga organiser ba noppi daanu wàññiwul dara mais tamit nga nekk nit nga nekk nit borom bi du wax ak ay dof qawmun yaqiluuna lay waxal qawmun yatafakkaruuna lay waxal yatadabbaruuna lay waxal afala yata afala yatadabbaruuna am ala qulubihim axfaaluha mu ne ndax dañ dul xalaat wala dañoo kastre seen xol yi kon sëriñ bi indi ñu ñun pour ñu kastre suñu xol dañoo war def ay fikru di xalaat di xool nan lañuy réaliser suñu mbir ak naka lay doxee nan lañuy ñuy jekkoo addiya ndax murit bu ci ne bu jaaxlee ñaari jaaxle yi la njaboot gi ko yàlla dénk ak lu mu yóbbul sëñ bi te yi moom bu ab yëngutu yombee ci moom rek duutu nekk ak jaaxle ci moom te ma ne lii di tax ma di ko yuuxu man maa ngi koy dund ndax man damay lité contre la délinquance juvénile damay mouvement bu tudd mouvement pour la récupération des jeunes en voie de perdition vers la voie de salut mais danaa récupérer ay nit jëlee leen ci drogue wala ma jëlee leen ci leneen mën naa leen a taxawal lu mat fukki at du am luñ def duñu am luñ def da ngay woote di lenqente rek léeg nga jox leen tur yàlla ñuy zikkër di mbëkk ak lu nañu dugg ci parce que doo leen waat ñu dellu ci liñ nekkoon te pourtant buñ delloo ci liñ nekkoon mu nekkaat fitna yi réew mi mais waroon nañu di xool loo xam ne boo récupéré nit ki ci yoon wi ne ko kaay def lii yoonu murid ñoo ëpp ci fii ci àdduna bi

waaye daal jàpp naa ne murid yi yëpp yëpp seen yéene moo doon ñu ñu organiser seen Touba mbiram yi ndax fii nu tollu jàkka ji bu ñu fa duggee li muy doon doon ak jaamu yàlla du fu neex waaye taxaw dañu wut kenn mu jiitu ñu wut sàppi su ci topp wut su ci toppaat su ci toppaat balaa imaam bee kàbbar sax danaan rang sàppe leen te jub bu kàbbaree bay tari ak bu cay jugee yooyu yëpp gis nga dafay tartiib nga xam ne kon jaamu yàlla sax dafa am nu ñu koy organiser kon nag yëf yi jot na sëkk ñu organiser beneen bi ci des tamit organisation bi mënut a ñàkk te bu ñu koy def tamit duñ ne kuréel gii rek ñoo koy def de Serigne Touba ñi mu àndaloon ci mag ñi di liggéey kër goo fi dugg ay karaag ñoo fa ne ñoo xam ne dañoo xam adduna lool jàng ko lool bu fekkoon ne jànguñu ko ci téere tamit day mel ne yàgg fi noonu pël def ak nag xam nga pël daa yàgg ak nag. ba tax na nag wi juddu wala nag wi mu jënd tey jii ci daral gi bu ko néew surtout lu mu la joxam dañ loolu yàgg ak nag moo koy def naa man naa jënd giléem léegi léegi léegi fekk na judduluwu ko waaye yàgg ak giléem dana tax lu mu la wax ci giléem ci gàftu dañ kon ñi ngay gis sëñ Tuubaa defal seeni maam kenn ku ci mën a doon yàgg nga ci biir nit ñi yàgg goo xam ne bu ñu la dégloo rek danga indi indil nit ñi lu leen amal njariñ te sëñ Tuubaa daan na wax ak leen déglu tegaloon ci wetam yonent bi gën a matale wasaawirum fil amri da ko doon kon nag loolu rek moo ci doonoon sama participation euh, ma jox say xaadim mu barkeelu ci laa ilaha illallah xam naa sax xaabaabal la euh, ndax jàpp ne lu may am na njariñ moo tax rek ma xaabaabal waaye wér na ma ne daanaka rek ci xolliti banaay nana yi laa doon joggi rek ci seen yërmande gën ma doon dégloo asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa